Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également Gaël, hein, c'est les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, de partager une information, inbox sénégalais, fait les Montenegro, 14 régions du Sénégal, ruxuruxaat yi gox-goxaat yi ñu leen di ñu également ci lal hôpital et ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi aussi erreur judiciaire génne li ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom leen fa delawaat leen seen njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de e-sport TV l'actualité on continue actualité bi ñu fas yéene waxtaanee gars les trois péchés de Aliou Cissé wala boog les trois défauts de Aliou Cissé ñu fas yéene si jàpp njàngat nag ah donc pour un peu wax aujourd'hui également yi nga xam ne mooy point yi ñu jàpp ne Aliou Cissé war na ko gën a amélioré waaye nag li jëm si gars yi nga xam mooy tirage au sort bu CAN 2023 nga xam ne nag gars yi ëllëg lay am incha allah rabi kii nag bi Akon la star sénégalo-américaine mom dal moko ko dal di ubi gay ak nga donc autorité yi fa nek pendant ça également ki nga xam Gérard Piqué dafa Ball ñi nga xam moy FC Barcelone muy 20 millions yuñ ko yoraloon lol dal la gay yi mu nek nak le seul joueur bu ko def du côté de FC Barcelone d'aller leen a Le lu 20 millions. pour wane rek également Gérard Piqué mom khalis mom moy mom moy xaalis ah ki nga xam mooy Vitor Roque également Xavi instant yi mi ngi bu pour mu du côté euh, donc du FC Barcelone au mois de janvier parce que actuellement blessure de bëri également Lewandowski fi mu ne nii tolof am tax na Xavi dal di indi ki di Victor Roque woo ko sax pour expliquer ko li mu bëgg pendant ce temps Guti la légende du Real Madrid néna na ki nga xamné nak moy donc ki di Jude Bellingham néna moy actuellement le seul joueur bu comprendre né euh, trône bi nga xamné Messi ak Cristiano Ronaldo ñofa nékkone fi mu ñoo ñu ñooñu nañ ko motax mom dal fi mu mi ngi avancer hésité wul il fait petit à petit son petit bonhomme de chemin ki nga xamné nak moy Benjamin Pavard nee na li ma jógee Bayern de Munich dama cee sant li ma dem ci Inter également mbégte la parce que dinaa jouer poste bi mu bëggoon jouer muy défense centrale ba pare dinaa fa mën a jàng lu bëri notamment que Italie sur le plan défensif ñoom ils sont réputés pour être les meilleurs nee na également ki xam Olivier Giroud lim ko woo sax moom Giroud pour mu daal di ñëw du côté de Milan AC nee na waa Milan si boppam woowuñu ko mais moom finalement il a décidé de partir du côté de l'Inter mais nee na nag Giroud moom def na lépp lu mën kéem tolluwaay kàttanam pour waxu ko te loolu bokk na ci tax mu daal di tànn ñëw Italie justement pour parler du Milan AC Raphaël Leao moom la ñu tabb mu nekk joueur du mois du côté donc de la Série A le joueur portugais bi nga xam actuellement il est en format hein. Leao avec ses trois buts et également ses passes décisives qui nga également Malik Malick aussi le joueur allemand parce que jël na nationalité plutôt joué dans l'équipe nationale d'Allemagne léegi daal moom fi ne ni waa Bayern Munich daal ñoo teg ci moom gët pour ko daal di recruter malik thiow mi nga xam ne nag ah, Sénégal voilà perte na défenseur mais comme je dis côté défense moom on a rien à envier à personne José Mourinho nag nee na moom am na joueur supporter yu AS Roma yu bëri yoo xam ne ñoom daal ay mourinisme qui euh, ay anti mourinisme lañ quoi nee na ñoom ay anti Mourinho lañ ñooñu daal ñoo bëgg mu jugee du côté de l'AS Rome mais am na beneen partie boo xam ne supporters yi ñoom dañoo bëgg mu daal di toog du côté de l'AS Rome AS Rome justement bi nga xam ne foofu la Romelu Lukaku daal di dem moom nag gars yi laaj nañ ko lu tax demu Arabie Saoudite notamment Al Hilal mu ne Al Hilal bañ ma njëkkee woo wax ma seen projet premier appel bi la le convaincre uñ ma mais Arabie Saoudite championnat bu mag a mag la boo xam ne ci année yi ñëw dina gën a màgg mais man fi ni ma parewul woon pour jóge Europe ki nga nak également ngeen fi Madueke Madueke nak également euh, fi mu ne euh, Chelsea dal dañuy xol bu fekkee ne jean ak euh, janvier bi ñeu amul temps de jeu bu doy dañ koy daal di pour may ko mo am temps de jeu ki nga xam nak moy ancien gardien de but du côté de Chelsea mon fa indi sax Edouard Mendy mon dal fi ok sur glace lay def nek fa gardien bi homme du match il a arrêté 64 tirs sur 65 62 hein. tirs plutôt sur 64 62 tirs a arrêté sur 64 tirs concédé ki nga xamné également nag mooy Kingsley Coman mom nak néna ki nga xamné donc Mathys Tel hein ah, même bu fekkee né boy bi dañ ne dafa tel ci ay âge boy bi dal daf ko yéem ndax limi woné entraînement aussi saison beneen li mu wane parce qu'il est décisif même bu jouwul bu continuer ci li nu mel dina nek un grand joueur à l'avenir hein ki nga xamné nak moy Sénégal U15 yi ñoom nag dañu am jogante xaritoo ñoom ak Maroc hein donc ñaari match lay doon le 12 lay doon ak le 15 hein le 12 ak le 15 si stade la Dior lañ koy dal di amalé ji jongante xarit wala nak jëm ci nga xam petite catégorie donc les U15 du Sénégal Aliou Cissé la ñuy waxtaanee son style de jeu Aliou surtout les trois péchés mignons yi nga xam moy mooy Aliou Cissé nga xam moy ñet yo xam ne japp na né ne Aliou Cissé moom la war liggéey il faut noter que né El Tactico a amené au Sénégal ci ben niveau bo xamné gaay Sénégal gëjoon na fa egg il faut qu'on reconnaisse ça depuis qu'il est arrivé en 2015 Sénégal jéeg am na ay jéego yu bëri yu ba nek champion d'Afrique également nek ay wéri wéri wéri wéri weer premier en Afrique euh, tey mu nek deuxième bataille nek champion d'Afrique 2022 né lool nak nag Aliou Cissé am na ci liggéey bari parce que créé na ben groupe bo xamné groupe bu soudé la il na fa ben discipline lool yeb dañ ko koy reconnaître et c'est un ordre bo xamné qui meurt avec ses idées ça c'est Aliou Cissé loo bañ bañ bañ mas mo li xam ne nit mom dañ ko waxal li nga xam donc ab jikkoom te Aliou Cissé c'est un entraîneur bo xamné il a fait ses preuves en matière de résultats maintenant nak comme on dit personne n'est parfait dañuy ñëw nak ñun tay def jàngat yo xamné japp jàpp nañu ne mooy ñetti poñ yoo xam ne tey moo sonal Aliou Cissé te loolu la war a liggéey poñ bi njëkk na gaay yi bokk na ci li nga xam ne nag mooy donc Aliou a peur du trop de meilleur hein. trop de mieux trop de meilleur hein. trop de bien plutôt hein, ne nuit pas mais Aliou Cissé moom dafa ragal maanaam li nga xam ne nag mooy donc am joueur yu talentueux yu bëri loolu da nekk loo xam day déstabiliser Aliou parce que Aliou dafa nekk sélectionneur boo xam ne moom daal dafa am ay convictions il meurt avec ses convictions donc moom naam benn groupe am bu yam groupe 15 joueurs am bu sañoon dem joueur groupe 15 joueurs 17 joueurs yo xamné joueurs yo xamné duñu bouger ñoñu lay mën di ligéyal ngir teg nga xam mooy donc ay idéologie mais Aliou bari ay talent yu ñëw di concurrence yi nga xam mo fi nekk di teg lo xamné gaay niveau la boo xam ne ñu ko gis da koy déranger parce que day perturber un peu li nga xam moy mooy loolu li mu tuddee moom stabilité groupe parce que Aliou aujourd'hui on l'a vu avec certains cas Yo ce sont des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal wala donc ñeu équipe nationale du Sénégal di prouver et il a fallu que la pression populaire wala joueurs yo ont NONO di woy ci dynamique pour Ali Cissé daal len di bu la plupart du temps ces joueurs là ont am temps de jeu bu doy circonstance moy am ba nga xam ne ñàkk pexe pexe pexe la ba Cissé daal leen di dugal on a vu ce cas avec ki nga xam ne mooy donc Iliman Ndiaye Iliman Ndiaye mi nga xam ne ñëw na équipe nationale du Sénégal laata Cissé di ko woo gars yi lu nekk wax nañ ko fekk boobu mi ngi toj Sheffield United Cissé woo na ko du ko joué loo ay bout de match la ko doon joué mais il a fallu ki nga xam ne mooy donc Sadio Mané blessé ci coupe du monde bi ki nga xam ne Crépin Diatta ñëw nekk euh, voilà nekk niveau bu bon a bon bon parce que doon jógee également ci blessure ngir Aliou Cissé té loolu également mooy deuxième match bi nga xam ne dóor nañu premier match bi deuxième match bi soxla victoire mu daal di dugal ki nga xam ne mooy donc Iliman Ndiaye donc Aliou Cissé c'est un entraîneur boo xam ne moom ah, joueurs yu ay yu bëri bëri bëri bëri da koy sonal parce que la concurrence devient rude et que là également day nekk loo xam ne tolof tolof lay doon beneen poñ bi également mooy Cissé aujourd'hui nekk na entraîneur boo xam ne kay c'est un entraîneur boo xam ne il aime trop parfois jouer avec de nouvelles expériences ah mais également de tenter de nouvelles choses si c'est un entraîneur boo xam ce également c'est pas un entraîneur boo il aime faire jouer les joueurs à leur poste poste pour poste nek no lo xamné Sénégal gëj nañ ko gis il n'y a pas au niveau du Sénégal une équipe entière bo xamné ne di nga len tek gis ku nek né ki dé postam lay jouer on a vu que Idrissa Gana Gueye ben mom mi ngi wax né mom il voulait jouer devant la défense en pointe basse gis ngeen Aliou il a fait jouer plus haut Il ki nga xam ne mooy de jouer le en pointe basse on a vu également le cas de Iliman Ndiaye bi nga xamné il est beaucoup plus à l'aise li nga xam devant la défense si cela fait plusieurs fois jouer sur les ailes on a vu également ki nga xam mooy donc Pape Matar Diatar Boy Thiès football bi nga xam il est beaucoup plus à l'aise à droite si cela fait jouer à gauche donc aujourd'hui parfois aussi nga gis attaquant boo xam day ñëw jouer pointe. nekk clubam di du touch, nañ fi Abdallah Sima gis également yeneen joueurs a un joueur du ma tudd seen tour yoo xam ne nañ équipe nationale ont pointe lañ doon jouer et tout si ce ne les faisait pas jouer à leur rôle forcément et que l'on également ça crée un certain manque de confiance chez le joueur et aussi un certain déséquilibre pour l'équipe nationale du euh, Sénégal. On a vu également, comme j'ai dit, que Ali c'est un entraîneur qui, a, qui, qui est trop lent pour faire confiance aux jeunes donc si c'est également nekk na entraîneur boo xam comme j'ai dit aujourd'hui moom le terme jeune dafa nekk loo xam ne da koy xaw a jeune boy seet plusieurs joueurs yoo xam tey ñu ngi leen di tudd Cissé n'a pas encore euh, cette comment dirais cette cette cette maturité je dirais pour jox leen seen chance parce que boo waxee mu ne booy teel nañ tel nañ tel na tel na teel na teel na Aliou Cissé également est un entraîneur très têtu loolu boy troisième péché mignon bi entraîneur la boo xam ne dafa dëgër bopp lool lool lool ñoo loolu reconnaître nañ ko Cissé c'est un entraîneur boo xam ne bul def lay bañ wala boog defal lii lay bañ quand c'est se sent acculé il ne prend pas de décision parce que moom jàpp na ne day décision populaire ce n'est pas une décision qui lui est propre parfois également day am malentendu moom ak fédération bi ak wala ak li nga xam mooy DTN bi gis ngeen ko par rapport li nga xam ne mooy donc du monde ba waa DTN bi tànnee superviseur c'est également jusqu'à présent il ne les a pas reçus alors si c'est un entraîneur boo xam ne également de par ses choix kooku day bàyyi ba changement yu yéex lay def donc loolu également <laughs> si façon dëgër bopp lay doon si persister day jël joueur tey dina jël on a vu en 2019 avec le cas de Mbaye Niang qui a joué toute une canne qui n'a pas marqué de but qui n'a pas également apporté li nga alors qu'il y avait des attaquants qui xam ci si ce ne leur pas donné le temps malheureusement bàyyi ba dernière dernier match dernière minute équipe beaucoup bëgg si dugal benn joueur bëgg ko jox yow tay tu as ta chance loolu non da ngay sacrifier ay joueur dal na fi joueur ci mel Diallo à ses débuts dal na fi ki nga xamné également moy eh, ki di Mbaye Diagne dal na fi aussi yenen joueurs gis nañ fi également le cas de ki nga xamné donc Kouli entre autres. Donc également, si c'est un entraîneur qui fait tardivement ces, ces, changements, on l'a vu le dernier match contre Algérie, il a fallu attendre les dernières minutes, 10 minutes de jeu de la, fin de la rencontre pour Moudougal Ben Lamine Kamara. Bon, en 10 minutes, il a fait ce que beaucoup de joueurs sur, euh, bien entendu, l'équipe euh, sur le terrain n'avait pas fait. Donc, trois péchés yu pour moi premièrement moi li nga xam ne moom lañ et moi dëgër bi deuxièmement Cissé euh, talent yu bëri da koy sonal parce que moom bu seen day am groupe bu restreint boo xam ne mu et c'est un entraîneur boo xam ne également beneen ponk bi surtout loolu laa fàtte woon wax jégalu jégalu mooy les difficultés de Aliou Cissé mooy troisième bi pour donc gars yi euh, résoudre l'équation des des des des euh, des plutôt des blocs bas blocs bas yi Aliou Cissé ci am bu rëy rëy rëy comment déjouer les blocs bas c'est encore un problème l'un des grands problèmes même de Aliou avec son équipe. Cissé, c'est dajee équipe bu am bloc bas day am problème parce qu'il n'arrive pas à déjouer cela il lay def pour déjouer ko nan la ñu déjouer un bloc bas vidéo boobu gars yi xaale ko ci kanam ci Baba Show tey moom la ñuy waxtaanee comment déjouer un bloc bas. woy leen de like woy leen abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV lan ngeen xalaat les trois péchés de Aliou Cissé muy dëgër bi ak bëgg effectif c'est riche trop riche parce que da koy sonal ak troisième également mooy la difficulté à déjouer les blocs bas.